yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàngale mi ak juróom benn yàlla may na suleymaan xamxam nanu bamtu nettali yi weesu benn ku may daawuda dooley rey goliyat yàlla ñaar daawuda mës na bàkkaar waaw Daawuda njaaloo na ak jenn jigéen ñett lu tax yàlla barkeel Daawuda ndaxte Daawuda mu ngi doon topp yàlla saa bàkkaaree tuub ko yàlla baal ko ñeent lan la yàlla dikk Daawuda dig na ko ne ab musalkat dina ñëw ngir daan seytaane te ci askanam lay bokk juróom ban téere la Daawuda bind saboor mbind mu sell mi nee na ci benn buur yi saar ñett aaya juróom ak juróom benn aaya juróom ñeent ba aaya fukk ak ñeent noonu ca gaba woon aji sax ji feeñu suleymaan guddi ci biir gént ne ko waxal li nga bëgg ma may la ko suleymaan tontu sa jaam daawuda sama baay da daan doxee fi sa kanam kóllëre njub ak xol bu làpp ba nga defal ko cofeel gu rëy kon nag defal ma xel mu neex ngir àtte sa mbooloo di ràññee lu baax ak lu bon ndax ana kan moo àttan yenub àtte sa mbooloo mu bare mii ñaanu suleymaan nag neex borom bi noonu yàlla ne ko ndegam loolu ngay ñaan te ñaanoo guddi gi fan wala alal wala si deewu noon yi waaye xel mu neex ngir àtte dëgg kon dinaa def li nga wax dinaa la may xel mu neex ak ràññee ba nga xam ne ku mel ni yow amul woon ci ñi la jiitu te du am ci ñi lay topp rax ca dolli dinaa la may li nga mañaanul alal ak ndam ba nga xam ne ci sa giirug dund du am buur bu mel ni yow te boo jaaree ci samay yoon te wattu samay tëralin ak samay santaane ni ko daawuda sa baay defe woon dinaa feq saw fan bu leen fàtte ràññee melukaan yàlla yi ci nettali bi yàlla may na suleymaan xam-xam nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla maye suleymaan xam-xam bi daawuda demee ba mënutul mu fal suleymaan doomam buur daawuda dajale kilifa yépp waxleen ne li mu bëgg mooy tabax ak këru yàlla ngir denc ci gaalu kolere gi dajale woon na ba noppi lépp li waroon ci kër yàlla gi waaye yàlla ne ko du moom mooy tabax kër gi waaye doomam moo koy def noonu daawuda jox suleymaan nataalu kër yàlla gi yàlla waxoon na daawuda ni këram gi war a mel daawuda sant suleymaan mu jaamu yàlla te topp ko ak xol bu set su wéyee ci topp yoonu yàlla nguuram du jeex ba faw gannaaw gi daawuda dee ñu suul ko yerusalem nguur na ñeent fukki at ñu teg ci tuuti yàlla feeñu suleymaan né ko laajal lépp loo bëgg ma may la ko suleymaan tontu may ma xamxam ngir ma mën a jiite nit ñi ak xel noonu yàlla ne ko gannaaw xamxam xam rek nga ma laaj dinaa la barkeel ak alal ak ndam lu ànd ak xamxam ci nguuru suleymaan wurus ak xaalis bare woon na lool suleymaan moo yilifoon la ko dalee ca dexu efrata ci filisti ba ci réewu misra nit ñi ci réew yooyu daan nañu fay suleymaan galak ci ñeenteelu ati nguuram la suleymaan tàmbali tabax kër yàlla gi ñu ngi tabax kër yàlla gi ci kaw tund morisa fàttaliku leen tund morisa mooy tund wa yàlla waxoon ibrahima mu dem fa ngir saraxe doomam isaaxa léegi sëriñ bu mag bi dina saraxe ci bërëb boobu ngir musal waa israel ci seeni bàkkaar banti cyprès ak sedar ak wurus lañu ko tabaxe ay jamaŋ ak yeneen xeer yu rafet ñoo doon rafetal miir yi bërëb bu sell ba sell ba mu ngi nekkoon ci genn feggu kër gi ab rido moo xajale woon bërëb bu sell ba sell ba ak fi des ci kër gi sëriñ bu mag bi rek ma mënoon dugg ci biir néeg boobu benn yoon at mu nekk ngir saraxe ni ñu ko daan defee ci mbaaru màggalukaay mi ci kër yàlla ga amoon na itam ab saraxukaay ak mbalka bu mag fu sëriñ si doon jàppe noonu ñu toxal gaalu kolore gi jële ko ca mbaaru màggalukaay mi yóbbu ko ca kër yàlla ga waa askanu lewi ñoo gàddu woon gaalu kolore gi ak lépp lu ci nekkoon yóbbu ko ci bërëb bu sell ba sell ba ñu fàttaliku ne ca gaalu kolole ga lañu denc ñaari alluwaay fukki ndigal yi benn potu man ak yetu aarono wa sëriñ yi doon lit di tëgg ak xalam ña ca des di way tey màggal yàlla taaru yàlla fees dell ca kër yàlla ga def lu mel ni aw niir wu ne ràññ suleymaan màggal yàlla ñaan ko mu barkeel leen noonu safara wàcce asamaan lakk sarax si nit ñi màggal yàlla juróom-ñetti fan gannaaw gi yàlla feeñu suleymaan génn guddi ne ko soo ma toppee ni sa baay daawuda yow ak sa askan di ngeen nguuru ci israel ba faw waaye soo ma dëddoo dinaa tas réew mi boole ci nit ñi ak kër gi ngeen ma jagleel xamxamu xamu suleymaan siiw ca réew ma suleymaan bind na ay léeb ak ay woy yu bare am na ci léebam bu ne lépp looy def jiital ci yàlla kon dina la jiite ba may la ci ndam lingeeru réewum seba dégg xamxamu xamu suleymaan mu ñëw Yerusalem ngir fiir ko ci ay cax mu ànd ak ay dagam yu bare indaale sarice yu bare waaye dafa mujj waaru ci xam-xamu Suleymaan Suleymaan itam delloo ko ay yóbbal bi muy dellu réewam Suleymaan amoon na jabar yu bare ñu ci bare doxandeem lañu woon gëmuñu woon yàlla aj dëgg ji mu gi ñu xiir ko ci mu jaamu seeni yàllay xërëm suleymaan dem na sax ba tabaxal yàlla yi jabaram yooyu ay këri màggalukaay yàlla mer lool ci li suleymaan def yàlla wax suleymaan ne dina nangu nguur gi ci moom ndax dog na seen diggante fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lan la Suleymaan ñaan yàlla xam-xam ñaar lan la ko yàlla may xam-xam alal ak ndam ñett lu tax ndaxte Suleymaan wanewul ak bëgge moo tax yàlla barkeel ko ñent fan lañu tabax kër yàlla gi ñu ngi ko tabax ci kaw tund morisa juróom lu ngeen yaakaar ne moo tax yàlla tànn bërëb boobu ndaxte foofu la yàlla joxe woon Ibrahima kuy mu wuut Isaaxa léegi nag foofu la ñuy saraxe ngir waa Israël juróom benn kër yàlla gi Suleymaan tabax ak mbaaru màggalukaay ma lan lañu niroo woon kër yàlla ga itam amoon na ab néeg bu am rideau xàjjale def ko ñaar sëriñ bu mag bi rek moo mënoon a dugg ci bër bu sell baa sell ba juróom-ñaar kañ la sëriñ bu mag bi mënoon a ci bërëb bu sell baa sell ba benn yoon rekk at mu nekk juróom-ñett lan la sëriñ mag bi daan def ci bërëb bu sell baa ba dafa daan wis deretu mala ca jégalukaay ba ngir bàkkaari nit ñi juróom ndax deretu mala yi daan nañu jot bakaari nit ñi déedéet doon na wone rekk ne nit ñi ay bakkarkat lañu te yelloo nañu dee deretu mala ab tayle la ba karapayoor gu mat gi di ñëw sarax bu mat bi sëkk mooy bi musalkat bi di def fukk lan la suleymaan bind bind na léeb yu bare ak ay woy fukk ak benn lu tax yàlla merewoon woon Suleymaan ndaxte takk na jabar yu bare yu bokkul woon ci Israël te mu bàyyi leen ñuy jaamu seeni yàlla yàllay xërëm fukk ak ñaar ndax Suleymaan mës na bàkkaar waaw benn ci fukki ndigal yàlla yi wax na ne bu ñu jaamu jeneen yàlla wala di ko tabaxal saraxukaay suleymaan tabaxal na ay jabaram màggalukaay ngir seeni yàlla yàllay xërëm yan melukaan yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla feeñu na suleymaan ne ko mu ñaan ko lépp lu mu bëgg suleymaan ñaan na yàlla xam-xam rek waaye yàlla may ko xam-xam teg ca alal ak ndam yàlla mooy boroom doole ndamam fees na dell kër màggalukaay ga ba mel na niir wu ne ràññ gannaaw bi suleymaan ñaanee safara wàccee na asamaan lakk sarax sa yàlla lu mu diggee def ko yàlla digg na suleymaan ne ko su toppee yoonu borom bi nguuram du jeex ba mukk waaye su ko deful yàlla dina nangu nguur gi ci moom suleymaan wàcc na yoon wi ba yàlla ne ne dina nangu nguur gi ci moom yàlla kenn la amul moroom yàlla mere woon na suleymaan bi mu jëlee jabar yu bare jabar yi bokkuñu woon ci israyil ñuy jaamu seeni yàllay bopp suleymaan teg ca tabax ay magalukaay ngir yàllay jabar ya beneen yoon dinañ waxtaan ci ni yàlla wone dooleem jaarale ko ci yonent yàlla elias